salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di amaan mbégte ak contentement ci àndandoo bu rafet bii ngeen àndandoo ak ñun tey nag ñu ñëwaat ak seen euh, émission bu doywaat bi mu di lu Lou'Bess Actu tey nag dikkati nañu ci fas yéene waxtaanee juróom benn poñ ya nga xamante ni dafa ama am solo lool mais nag du ma ci wéet benn yoon mu fas yéene ci ànd ak euh, ki koy toj chaque jour rek muy Ahmadou Diallo Ahmadou maa ngi lay nuyu di la ziar. Arissa maa ngi lay jaajëfal bu baax ah di la di bisimilah ci Lou'Bess Actu. Mm-hmm. ñu jukki xam ne moom mooy euh, actualité bi am ci biir semaine bi ñu waxtaanee ko ñi nga xam ne ne nit ñi bàyyi nañ ci xel bu baax a baax. jërëjëf Ahmadou comme ni mu ko waxee ñu fas yéene waxtaanee euh, juróom-benn poñ yi nga xamante ni am na solo lool mais du ma ci wet benn yoon comme ni ma koy waxee rek ànd ceeg Ahmadou Diallo chaque jour moom da koy pëndal di nuyuwaale aussi ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy siiwat ci diwaanu Cambérène di sama xarit yu bees yi waa Rapace Vision di leen ziar bu baax a baax Ahmadou Diallo tey ñu njëkkee ci bi nga xamante ni fan yi def na indi na fi ay ampleur bu baax a baax muy problème mu Ahmed Suzanne kamara bi nga xamante ni saaga na ku mel ni sunu njiital réew ana yan jàngat nga am ci loolu. waaw xam nga kaw Ahmed Suzanne Camara dama yaakaar ne dañ ci war accentuer une bonne fois pour tout gérer ko parce que yaakaar naa mag bu bu réewee dañ ko war a yar te c'est pas la première fois Ahmed Suzanne kamara wax na fi ay mbir yoo xam ne yu grave. Mm-hmm. moom fi njëkk mu ne Ousmane Sonko dañ ko war a rey dégg nañ ko aussi sur l' affaire des des gendarmes disparu mu def ay révélation yoo xam ne yaakaaroon naa ne man jour boobu du fanaan këram procureur da ko waroon woo mu ñëw wuy si mais bu ñu weesoo ci loolu ñu gisaat ko tamit ci barki démb mu génn mu wax ay kàddu yu teggi ni man jàpp naa ni Amath Suzanne Camara sa sa place n'est pas à la prison. Mm-hmm. dañ ko waroon jël yóbbu ko place la nation yeew ko. Mm-hmm. jël yattu kel teg ko fa. Mm-hmm. Sénégalais bu romb dóor. ma yaakaar naa punition bu lañ ko war a bu ñu jógee ci loolu la faute à qui à la presse sénégalaise parce que dañoo gis benn affaire bu am boo xam ne ñun presse bi ñun pour man on est à 100 pour parce que des gens comme Amath Suzanne Camara da ngay gis sax suñu invité leen ci plateau télé. Mm-hmm. mag boo xam ne amul yar amul teggin xamul nu muy waxee da koy jël kilomètre devant la scène je dirais même pas 20 de sénégalais. mais à travers le monde ñeneen ak ñeneen di ko seetaan pour man la faute la première des choses c'est les Sénégal c'est la presse sénégalaise. parce que lii bu amee tey presse sénégalaise moo ko def. on voit des gens yoo xam ne tekkiwuñu dara ci réew mi lu dul wax wax ju ñaaw saaga presse sénégalaise ñoo lay invité. chaque jour ñu invité leen ci ay plateau télé. gis nañ ko fi Pao bëgguma sax tudd turam tam sant jaxate wax yi mu fi waxoon Seydina Mouhamad gën ci mbindeef. taxul tey chaque jour presse invité ko. gis nañ fi le cas de booy bi sant Nguer te mu mu dooroon dóoragee ci 10 millions yi affaire clé USB des gens yoo xam ne sans valeur mm-hmm. ni éthique ni morale ni rien du tout ñoo xam ne ne ñaar kenn ñaanu yàlla am bàyyi ñu mel ni ñoom wala nga am doom bu mel ni ñoom. Mm-hmm. ñoom la presse sénégalaise di invité leen teg ci plateau télé yi ñuy wax ak sénégalais di jàkkaarloog ñoom. Mm-hmm. mais lii ba kañ sanction bi parce que presse sénégalaise dañu jàpp dañu am doole ah. c'est ça notre problème ñun dañoo jàpp ñu doole ba dañuy def lu neex. dafa war am sanction bu dal ci kaw presse sénégalaise. parce que Amath Suzanne li mu wax nii du tey lu ko njëkk wax yàgg na ko wax yàgg na ko def ñu koy taxul ñu koy invité ci ay plateau télé. na sax dañuy xool ay dof des des des des femmes comme xaw ma nan tàmpi ñu xam ne sans rien dans la tête alors que ay jigéen yu am valeur ay jigéen yu xam politique di ko wax joxe sa avis te doo saaga kenn doo offensé kenn ñu ñu ngi ci dëkk bi mais kenn du leen invité. Mm-hmm. pendant ce temps ñii réew ñii xamadi ñii nëpp. dañu invité ci plateau télé ñu toog. ay mag yoo xam ne amuñu rusukaay amuñu dignité amuñu vergogne. par lan si lan ñooñu suñu xale di xool pour joxee exemple moo tax léegi boo génnee ci benn gis xale bu taxaw di saaga wala wax lu ko neex mais buñ buñ ko corrigé. parce que saa su nga yeew gis ci presse bi je le dis bien presse sénégalaise ñooy toog chaîne YouTube bi ñooy invité ñoo xam ne ne tekkiwuñu dara. réew nañ ba fu réew yem ñu teg nañ ci plateau télé ñuy wax lu leen neex. Mm-hmm. kon lii bu yeggee fii presse sénégalaise moo ko fi moo ko fi indi. xoolal tey émission yi am na benn émission wax kër dof yi la ko booy tuddee. kër dof yi lañ ko tuddee boo xoolee émission boobu ñi fa toog ñëpp ku la ci gën a nekk dof nga ne ma kii la. <laughs> dañ que am tax ñu nekk ci presse ça fait mal da ngay génn toog l' euh, après midi wala ngoon gi nga toog say say xarit ngeen di waxtaan. Mm-hmm. nga gis li ñuy taxé journalistes yi. lu ñu taxé les chroniqueurs li ñuy taxé euh, euh, nu mu tudd sax les influenceurs. yéen li yéen li yéen li dafay metti nga toog jàkkaarloog sa naataangoo muy wax ñu ne la kii c'est un journaliste wala kii c'est un chroniqueur bu waxee nga ne kii fu mu jógee bu li muy wax yëpp waxu daf la ci de A à Z waxu daf journaliste chroniqueur da ak wala journaliste da dem nga gëstu mais bu information ñooy rek ratatati di wax li ngay wax gëstu woo ko xamoo ko mais aussi est-ce que yoon la ñu leen di tëddee euh, këru dof parce seen xam-xam la am di wax comme ni ko ñeneen amee ni ko Pape Alé amee ni ko keneen amee mais dafa mel ni ku bokkul Pastef rek ñu ne la dof nga est loolu aussi yoon la. erreur boo tax la Sénégalais di def. du mhm. question bokk Pastef wala ñàkk bokk Pastef Sénégalais xam nga lu tax il faut qu'on respecte les Sénégalais. Mhm. te gis nga li ma doon wax avant avant avant euh, Diomaye Faye di di di di di di nekk président. Mhm. na quand xam-xam. boo toogee ñoom di wax da nga leen wax loo xam ne ñoom. xam nañu li ngay wax ni dëgg la. du question de Pastef question de AP question de question de nité ay ko toog naan euh, avion bi euh, bi déra avion bi dérapé pilote bi moo di fan la frein pilote euh, avion nekkee ci suuf ba nga koy bës pour wane que que wéruñu lii moo am ci suñu société jamono ji que na presse sénégalaise jël ay responsabilités dof ñuy invité ci plateau télé yi ñuy wax ku ci wax musiba. nañ leen ñëw jël kooku wax musiba ba pare. boolewaat ci journaliste bi wala kii ko invité ñu boole ñëw yóbbu si kaso bi. mais est du presse bi dafa feebar. feebar bu bon. Mhm. presse sénégalaise gën a feebar loo gis jamono ji. ñu sampal leen perfusion. non waxuma la perfusion leen war a yóbbu dalal xel faji leen. Mhm. ay dafa toog ci plateau télé yi di wax. Mhm. parce que bu nit ŋaaŋee wax mais da ne bu dul dara sax yow boo jàngul sax yaakaar a a teer xam ne am na lii parce que boo xoolee journaliste yi dem nañ ba ñàkkal seen bopp fayda ba léegi kenn respecté wu leen ci ñi nga xam ne ñooy troisième xaw ma quatrième pouvoir. du ñu benn quatrième pouvoir nañ bàyyi wax jooju. Mhm. que presse sénégalaise ma quatrième pouvoir parce que loolu moo jox fu mu toll nii ku toog ci plateau wax lu la neex ku jóg invité dof muy xoolal presse sénégalaise y' a y' a combien d' ingénieurs combien de médecins combien d' économistes yu nekk ci dëkk bi. Mhm. mais xoolal rek les mêmes têtes la ñuy invité. ñi dàq wax dof. ñi dàq def wax waxu dof dañuy invité ci plateau télé yi. pendant ce temps ñi am xam-xam am kàng nekk ay kàngam dëgg domaine boo dugg am na ñoo xam te bu ñu waxee sénégalais jël ci njëriñ duñu ni invité ci plateau télé yi. duñu leen mës a invité kon nag euh, foofu la ñuy jaaree rek tëj point bi daal di jàll ci euh, inondation yi Ahmadou mu mel ni inondation yi lëmbe na lool lool lool lool dëkk bi boo demee ba diwaanu Touba dafay mel ni géej. keroog maa ngi génn xale yi naan am nañ géej am nañ géej mu mel ni lëmb na Touba lool lool. waaw gis nañu image yi ay xale nekk ci benn bayaal bu am ndox di si sangu. Mm-hmm. et ça fait mal quand on te dit on a on a de milliards pour l'inondation mm-hmm. assainissement à Dakar et tout ça. Touba euh, da ngay da ngay man li ma jaaxal mooy 2012 ak léegi. dañ def ci milliards inondation man romb benn canalisation boo xam ne ñu ne canalisation bu bees la wala canalisation bu ñu tabax la il y a un an moo nekk nii ah bi ñu ko tabaxee léegi de. soulager na population bi gisuma benn li may dox li may wër Sénégal gi yëpp gis Dakar moom dama ko jëlale ndax amul kenn ko xam je défie tout le monde nag muy Cambérène nag di Médina di Thiaroye di Guédiawaye di Parcelles benn canalisation bu ñu def boo xam ne lii état bi fi nekkoon ma ko fi def mu ngi nii mi ngi mi ngi mi ngi drainer ndox bi mu ngi ko yóbbu. Mhm. amul wala ku ko gis na ma ko wan. Mhm. man gisuguma ko. nga gis ne état bi deful dara. mais ana milliards yooy fu mu dugg. Mhm. mais ñun Cambérène mu wax dëgg yàlla sant nañ moom. wax dëgg yàlla parce que Talla Ndiaga Mbaye ku ko gisoon ni mu meloon avant dun paate di fi ñëw ak léegi am na changement. macha allah sunu koñ da daan taaba ca laa ñëw man ndox mi fii dama daan yem mais dafa am zone yoo xam ne. Mhm. Dakar presque île la. Mhm. ndox bi jàll. mais nag li nga gis nii dañuy bàyyi ba nawet bi nawet bi jub si. Mhm. defar ne dañuy defar ay canalisation Dakar li muy taw mois d'août la. juillet day laal tuuti août lay taw septembre mu wis wisalu taw bi jeex. le reste la l' année lu leen tere defar canalisation yu baax. soulager population bi et que audit bi li ñuy wax rek nañu wax suñu milliards yi ñu defoon li ñu def ci inondation bi. téléthon yeeg yëpp xaalis fu mu dugg nañu ko wax on a besoin de savoir ah. kon ñoom ñortu bu rafet rek mu mel ni Serigne Goundou ak euh, Korom ak dinañ ci jàpp bu baax a baax comme ni ñu koy waxee mais tey Ahmadou tey ñu ñëw ci troisième poñ bi muy départu Salma bi nga xamante ni jur na problème trop trop en tant que sénégalais est-ce que Salma jóge fa mu jógee dem euh, RTS est-ce que war na jur at problème yi mu jur yi. xam nga euh, actuellement du sénégalais ñoo bëgg a hmm. <laughs> su yore CFM bu <laughs> war na mën a dem RTS déposer pour am liggéey. Mm-hmm. bu ñu gisee ne que soxla nañu profilam dañ koy jël c'est quoi le problème ay que démb ànduloon ak état bi tey ànd nag état bi Pape Alé Niang dama koy féliciter ci li mu def. Mm-hmm. parce que war na leen carrément li fi amoon amutu fi maanaam diw moom tant àndoog ñun rek mais état dañ koy critiquer. Mm-hmm. état dañ ko war a critiquer c'est pas parce que da nga critiquer état rek que yow léegi euh, administration lépp loo xam état da nga nekk ci administration bi doo am fitu critiquer ba ba critiquer su mu laaj la demande explication nga wax ni ñu ñu dàq la. Mm-hmm. le cadre Ousmane Sonko rek yaakaar na doy na firndeel. Mm-hmm. ni mu def ba ba yegg fii bu mu jógee impôt demee lan moo fa xew. lépp sénégalais xam nañu ko histoire ñun toltuñu foo xam ne dañuy toog géwél dañu nettali lu xewoon. Mm-hmm. ñun histoire Sénégal jamono ji ñëpp ko fekkee. ku nekk mën ko nettali sa bopp. Euh, Pape Alé Niang li mu def man bu bëggee dem RTS bu déposé RTS soxla profilam lañ koy jël keneen ak keneen bu déposé RTS soxla profilam da koy jël c'est aussi na solo ñoo ko déggandoo ba tey mais nag ñu ñëw ci coow bi nga xamante ni dafa lëmb dëkk bi muy deuxième dame bi nga xamante ni ah mu ngi toj dëkk bi parce que gars yi nee nañ sac bi mu yor 2 millions lay jar nii naan 16 000 lay jar mais Ahmadou sac bu rafetee noonu est-ce que dina jar 16 000. xam nga euh, Sénégal pour man dañoo dañoo toll ci benn débat boo xam ne naa ah, ay débat inutile la. Mm-hmm. ay premier ay deuxième dame bi saak bi la yor gis nañ ko premier dame bi mu njëkkee génn la njëkk wane saak bi fu mu ko jëlee ak tout ça. Mm-hmm. Euh, deuxième dame bi ñëwaat ñu gis ñaari ñaari mm-hmm. boobu ndax ki koy jaay ku ko bëgg contacter mën nga ko contacter. Mm-hmm. ñu gis tamit beneen beneen même boobu ñu gis ni que ñu ko jaayee xaw ma. 3000 euros xaw ma ñaata. xaw ma 3500 euros. Euh, gis nga sac boo gis à l'extérieur boo ko joxee tey suñu cordonnier yi fii ñu defar ko. ngaay macha allah dañoo mën nañ te xam nañ li ñuy def. ay booy ndaw lañ demal ngaay ñool fii Médina rue 11 defarkatu dàll yi. lépp loo bëgg boo ko indee ñu defaral la ko et nañ nañ nañ nañ nañ nañ nañ commencé consommation locale. saag yu rafet yaa ngi fi lal yu rafet yaa ngi fi suñu menuisier ku leen jox lal ñu defal la ko boobu ñu reproduire ñu reproduire la ko alors c'est c'est des débats inutiles jël na saag dem na dem na France ak patati patata après alors que y a des yoo xam ne war nañ ci si mën a wax yu beaucoup plus importante beaucoup plus grave que ay ay ay débat wu saag quoi. bi xam naa li mu rafet moo xaw a tiital gars yi mais tey ñu jàll ci euh, affaire bi nga xamante ni mooy affaire Lat Diop bi nga xamante ni yoon woowoon na ko ngir euh, déglu ko. waaw xam nga fu mu toll nii moom yoon ñi ma war a woo bari nañ mm-hmm. ndax euh, comme ne wax rek histoire bi fii la ñu fekk bu ñu toogee gis euh, en je crois président bi naan la Diop da ko dénkoon ak un milliard rek. da mm-hmm. woo këram ak yooyu. c'est des révélations xam ne fu ñu poursuivre ko mu demee. Mm-hmm. laajte te yaakaar naa le cas de de Karim Wade war na yee sénégalais yi. affaire yi kenn ko parax parax. ñun yëpp ñi voté ñi ñi sénégalais yi voté les 54 pour cent ñoo voté euh, parti bi fi nekk jamono ji li ñu bëgg mooy ñu auditer leeral ci mbir yi nga xam ne moo fi amoon te yaakaar nañ ko leeral ndax sénégalais loolu moo tax ñu fal leen. 54 pour cent yooyu dañoo bëgg xam mbir yi nan la demee. tey boo xoolee euh, ñu ci nekk ci presse bi gis nañ ko. Euh, distribution xaalis bi bari woon na gars yi noonu dañu doon séddale macha allah. gars yi gars yi encaissé nañu lekk nañ léegi nag audit day am. Mm-hmm. ku nekk nañ la laaj sa sa li ñu la dénkoon noo ko noo ko gérer. alors bu nit ñuy taxaw rek def révélation diw mos na ma woo këram di ma jox un milliard pour ma dencal ko. Mhm. ah il faut ñu woo ki ko wax woo ki xam ne moom lañ kii. Mhm. te yaakaar na enquêtes yi li ñu dal ci ci Karim ba ñoo dal ñu teey ci jël temps vérifier xool li ñu wax rek les comptes prête noonu yëpp ñu vérifier ko. ku nekk ñu xam daal sa xaalis bi nga sàcc foo dugal nag gars sàcc nañ mhm. mu neex nit ñi mu naqari ñi gars sàcc nañ mhm. gars sàcc na ñoom sàcc nañu yaakaar naa ne audit bi bu ñëwee dina leer nañ mais ñu jàll ci euh, suñu dernier point bi nga xamante ni mooy tëj lu bees ak ci muy làmb ji diggante Tapha Tine ak Balla Gaye mu mel ni gars yi yëngatu nañ trop ñii ni dañ dañoo sot Tapha Tine ñii ni ko ak yow mi nga xamante ne Ahmadou dañ laa fay 100 millions fay ma 100 ñu ne man dañ euh, dañ laa sot est-ce que loolu yenu Mm-hmm. dañ la fay fay sa morom kay. Mm-hmm. fu mu dugal dugal foofu. Mm-hmm. mais man li ma li ma contre un peu mooy le fait que kii organiser làmb bi indi mbërëm. ko tëgg làmb indi sa indi sa mbër man je contre ça parce que tey on a vu des images yoo xaw ma ne image yu bees la wallu yàgg la ki organiser làmb di gis ko mu ak mbër bi dem ci stade guddi di suul affaire yaakaar naa foofu rek benn euh, kii am na fa c'est pas c'est pas équilibré. alors euh, làmb la làmb Sénégal la demee nii. Mhm. mais daal man de bu ma ne woon mbër jamono ji mbër boobu empereur bi du ma bëri ak moom te wala su may bëri ak moom sa beneen promoteur moo koy tëgg. Mhm. mais la fekk promoteur bi nga xam ne mooy xaritam mooy moo tëgg làmb ñun ñaar faral ko moom vraiment loolu dafa dafa ñaaw quoi pour man. est-ce que nekkul ni gars yi dañu xaw a jéppi Balla Gaye rek di bëgg a salfaañi victoire bi parce que gis nañu aussi Boy Niang ak Balla Gaye Aziz Ndiaye moo ko tëggoon teewul Boy Niang dafa daan. moo tax tëggee sax dafa rafetul ci gis-gis dafa am nga xam ne ne gis-gis la. dafa rafetul ñu ne euh, Balla Gaye mbëru Aziz Niang la Aziz Ndiaye moo koy jëli këram ànd ak moom di dugg di génn gis nañ fi benn vidéo ñu dem di sàngu ji ay galaaj ci ci ci géej gi euh, ba pare moom koy tëgg làmb. muy bëre keneen. Mhm. pour man bu dul dara sax na ko na ko keneen tëgg te yaakaar naa CNG aussi def leen seen liggéey ni mu waree. Mhm. loolu tamit yaakaar naa nekk na point wax war nañ ko souligner. Mhm. vraiment li ci nag mystique la. làmb ak mystique ñoo ànd <laughs> bu ñu fayee sa morom 100 millions fay la 100 millions rek fu mu daw uti mystique rek dawal uti mystique rek après mu neex mais nag war nañu war nañu wàññi butéel yi na gars yi yëpp def butéel te làmb dañ Ah, ci ci ci même benn takkusaan après ñu ne ok mais parfois nga di mbër bu ñoo taxaw léewtoo sax mënu ko ponkal boo xam ne doon tafaatin loxo yi sax mënul jóg après c'est sa c'est un peu bizarre quoi ba dee sax mhm. mais tafaatin est que entraîné na Ahmadou man tafaatin bi ma gis nii. yii tafaatin gisoo mu meloon tafaatin comme comme man tafaatin bi muy bi muy bi muy génn ci bi muy gàddu frigo bi dama ko gis dama tiit man moom euh, jour bi bi bu mu taxawee noonu mook mook Balla Gaye premier taxaw bi dama ne non Balla Gaye na na delloo na delloo xaalis bi tafaatin ni ma ni ma gis nu mu doy nii euh, benn copain jamono ju ci quoi koor korité mu doon waat xaw ma tabaski lu mhm. korité la benn copain ne ku ku amagul tissu dama nga jënd tissu tafaatin bu duggee ci marché bu jënd tissu kenn du am <laughs> alors <laughs> mu nekk des choses yoo xam ne ça fait rire mhm. mais làmb moo demee noonu man moom jàpp naa ne Balla Gaye da koy daan parce que xam naa ne mën na ko nax ba daan ko. Mhm. mais xalaatu ma du ko dóor comme dóoru xale yi. Mhm. dóor ko pare daan ko Tapha tamit ñëw rek mel ni mel ni mburu mburu mburu fakadaga bàyyee ko complètement loxo yi daal vraiment c'est c'est bizarre daal man daal man man moom. vraiment war nañu wàññi mystique bi daal ci làmb ji daal c'est c'est trop quoi parfois dafay dafay flagrant de de Tafatine mel ni mel ni ku ku loxo yi amul dara. mais est ragalu ko parce que Balla dafa yàgg yëpp Tafatine. non ragal xanaa nag nit loo tapet moo gën a mën a xeex. ndax mhm. tapet dalay jéem dóor benn dóor boo xam fa ngay pare. mais am na koo xam ne foo ko seen jàdd koñ de. ah non non non est bu la cortee. Mhm. wala bu xam ne bu la dóoree nga wàcc. Mhm. benn dóor benn benn maageel la la dóoree nga wàcc Tapha Tine daal vraiment man loxoy <laughs> daal lu mu jógul daf maa def kaa quoi vraiment. ngi noonu kon dafa mel ni Tapha Tine daal wax wax na ba nax ñu rek. Ah, mi mais li lañ leen indi doon ci euh, lu bees actu Ahmadou ma bàyyi la nga joxe sa kàddu gu mujj. waaw di jaajëfal ñëpp rek di wax aussi comme ñu ngi ci nawet nañ moytu poto euh, poto courant yi. Mm-hmm. moytu aussi canalisation yi te tamit ngir yàlla war a suul ñi di sàcc kubéeru canalisation yi tamit nañ ko nañ ko nañ ko kii nañ ko nañ ko def benn nañ mm-hmm. ci jàpp amul de chercher de midi à 14 heures benn 3 ans rek wala benn 5 ans ferme wala ñu jël la rek juuta sa bopp bi roof la ci canalisation te sa tànk ci kaw nañuy torturer parfois yenn nit ñi parce dafa neexul. centenaire bi moom da ngay romb ay canalisation yoo xam ne di wekki nañ ko te man gars yi man man y a des gens yoo xam yu sadique quoi. Mm-hmm. canalisation lu ñëpp bokk ndox war fa jaar dindi ko dèjà mbuus yeeg butéel yëpp dugg fatt ko mais nga gis ku ñëw genre larisa yi nga xam ne motuñu un mètre vingt <laughs> buñ ci duggee duñ génn. danañ ci bàyyi xel tamit ngir yàlla te buñ ko dinañ mën ay caméra de surveillance yenn yenn kii ku ñu ci gis nga nga def ko ñu recherché la wala ku romb ku koy kii ñi koy jënd tamit ñiy jënd weñu canalisation tamit ku ñu ci jàpp. dañ mm-hmm. la sanctionné ah. Mm-hmm. di jaajëfal euh, ñëpp surtout les sapeurs pompiers. ñu def liggéey bu am solo macha allah. Mm-hmm. waa caserne bu jëppal euh, Mouhamed Thiam chef Thiam maa ngi lay ziar bu baax di ziar gaa yëpp vraiment seen liggéey am na solo te yaakaar naa ni war nañ leen gën a jàppale les sapeurs pompiers. Mm-hmm. parce que fan li ma romb ci ay accident romb ko ci ay mbir yoo xam ne dooy waar te ñoom ñooy premier secours te nit ñi aussi ñii di woote ci ci ci ci 18 pour tooñ wala pour fo ngeen war a xam ne ligne bi aussi ay urgence lañ ko soxla. Mm-hmm. du pour wootee di di di def n'importe quoi. Mm-hmm. tey di jaajëfal tamit euh, gars yi nekk ci caserne bi yëpp di leen sant bu baax a baax. jërëjëf Ahmadou comme ni mu ko waxee rek nañ ci dimbali bu baax baax ci euh, canalisation yi comme ni mu ko waxee sama zaar geeg zaaru cabay moom bu ci pëtëxee kat dootu leen gisati maa ngi jaajëfal nino américain bi di jaajëfal aussi Fatima di jaajëfal aussi Caba Ahmadou maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax mi ngi noonu lii lañ leen indiloon ci lu euh, Lou'Bess Actu di leen jox rendez-vous ci yeneen jërë ngeen jëf.